gis nga dafa am kenn ku mas a ñëw ci mam Sëñ Tuubaa rabbiyallahu taala ne ko man de ni laye ni jappé jaaxal na ma lool <laughs> mu ne ko ni ñu jappé mu ne dañu raxas bam aksi fi mu ne ko ah kon dañoo mucc nañ ci hadith bi wax ne ku raxasul fi ñu nag ko <laughs> lo ci waxati dara mu tambali bëgg jëw laye ni wa Cheikh El malik ni ko laye ni dañ ma jaaxal mawdu ni ko lutax mu ne ko parce que ñoom bu nu dee jàpp pour julli dañuy raxas ba ci seen óom te bu ñuy dem jàkk ja duñu bàyyi kenn kër ga xale yu ndaw yeeg jigéen ñëpp lañuy yóbbu jàkk di xaar Maodo tontu ko Cheikh El Hadj Malick ni ko am mais bu ñëpp defoon ni ñoom diine du fay. waaja dafa ni ko yow daal sëñ bi dama gis booy waxtaan rekk du tudd suñu tariqa ma ne ko yow lan nga. man man mu ne ko man mii laayeen laa laayeen yonent lañu ñii ay sëriñ lañu ñëwal ci maam Kumba Ndooy li ngeen def ci seen lettre bi seen téere bi maam ku Ndooy li li maamu laay am dafa gont yaayam moo xëyoon dafa dencoon toujours moom moo doon jox maam limaamu xaru tabaski ci géttam bàyyi maam limaamu maa ngi jéggal toujours moo doon joxe xaru tabaski mu yafal benn xar ba mu ba mu jekk xar bi dem ànd ak moromi xaram yi ba ñu wottee ci ñax bi bay naan ci déeg bi ndeka jësit mi ngi foofu jësit yi ñu daal ne tataf bi maam ku mën doon dencal borom këram rek kuus moom jëm ci biir di ko dugal di ko génne pour xër ko naq ko mu dee xale yu ko ne ah suñu maam lay xar bi mu doon dencal suñu maam bu ngir tabaskeem jësit bi jël na ko nee nañ maam kumandooy fa la sànni mboole malaan yu oyof yu diisam sànni di ko ca biir ñu ne ko soxna si bul dem mu ne ko bii ma joxoñ kilifa gi ne ko bii sa mooy sa tabaski man man maay dee ngay bu kuy gi waaye kuy bu du dee mu man ma dem nettali ko lii maam kumandooy moo ko de muy jëflanteeg jësit bi di jëflanteeg moom bet dindi ko ci gémmiñam kooku bu juree limaamu wallahi jaadu na mu jóg kii moo defoon lii ngir doomam am tey ji nee na waaye nekk boroom kër gi mi ngi ca kër gi xam na baatin mu ne ko soxna kumba mu ne ko mu ne ko li ma doon jaay jaar na ki jamono doon wut xamuñ fan lay feeñe ji feeñ na ci kaver mooy ajibu daa iyallah kon jigéen moo xëyaloon doomam mu gont mbirum yàlla